waa Pastef di la suspecté ne da ngay joué da ngay joué du be waa Pastef. est que waa Pastef la. tuddal ma benn responsable Pastef bu mës a dem toog ci télé. duñ ko pas dit ça non non non non may nag gis nga may may dama laa rus. may dama laa rus mais bàyyi jaxase. bàyyi ruube bàyyi jaxase déglu ma expliqué rek jarul ngay ree dama ne ban responsable Pastef nga mës gis mu toog ci télé. ne Ahmed Aïdara lii ak lii ak lii au contraire ñun bu ñu toogee biir assemblée nationale man ñiñ gën di jox même appel au règlement dañ naan jox leen Ahmed ayib dafa ne article 127 bi la. ma def nii dama ne. man daal ma ne dama ne. pourquoi au sein de Yewwi ñu commencé bëgg ma rek déglu ma rek ma expliqué la rek déglu ma expliqué la xam nga man depuis jour bi ma waxee ne président El Hadj Malick Gakou man mooy sama candidat jour boobu sax laa commencé di dégg yenn yi et loolu c'est normal gàkkoo fa am lu kenn amul. c'est ça il faut mu sonn gàkku rek moo am conférence des leaders <laughs> militants la conférence des leaders da yeewee askan wi mel na Malick Gakou tundum moo fa am militant man militant am la maay directeur de campagne mooy sama patron di sama candidat. mais nag yow fi nga bëgg dugg ci opposition bi man du ma fa dugg man daal tontu naa la da nga ne waa Pastef lu tax lii ak lii ak lii ma ne la Pastef tuddal ma benn nitu Pastef wala responsable bu ñu xam. en tout cas daal. non non non non may no non non non non non non man non non non non non non non non non may non non non non non may déglu ma non non non non non non non non non non non may attendez non non non non may may may non may déglu rek may non man duma la wax man duma la non non non déglu ma rek waaw déglu ma expliquer la rek xam nga yow ay nit ñoo xam ne xam nga ay nit ñoo xam ne dañoo ñëw ba ci yow ne la ñun dañoo compter ci yow ba avant-hier démb la lan démb du dimanche ba samedi ayib dafa mi ngi naan ma ah, su ma génnee ci léeg-léeg li pour liñ doon waxtaanee nga ñëw ñu daje assemblée léeg-léeg samedi. di nga ko def. waaw non déglu ma expliqué la rek non yow moom du yow du ma la wax naa ko def wala ma ko def xam la moo tax gis nga parce que dama la bëgg a xamal ne la. da nga tudd passif de yow yaa tudd passif man tudduma passif. maa leen yaa leen tudd ne tuddal ma benn responsable lu Pastef nga ne ma noo ci suuf lu ñuy ragal lu ñuy ragal ci man non dama lay laaj lan la ñuy ragal ci man amee ay dara ba war rek yow toog di instrumentaliser ay nit ci koo xam ne yéenay toog di réunion chaque jour dama ne man daal li ma la wax dafa leer dama la junju nag dama la junj de. loo ma junj man daal junj naa la ma ni la. Alaaji Malick gàkku daal moo am ci conférence des leaders Yewwi Askan Wi loo xam ne kenn amu moom dong moo fa am militant.